ayca grand fii jëlee fii jëlee fii jëlee ñu ñoo laa dimbali yow. waaw waaw ñu lay jël nga bañ na dara. Why are you What the fuck? DG moytul xale bi ak soxna si moytul oto bi oh. eh Wale eh Wale. xaaral xaaral xaaral xaaral. Mar xaaral Mar xaaral Mar. eh Wale. Seydou Seck. oh kër kër. Wale. Seydou Seck.

Ali bu ñu xël Ali Salif ay dara. may na ko mu génn. baara ay dara Salif. Salif yëngal sa xar. Béja jëlal ma ko doon bële jëlal ma ko doon bële. tëjal tëjal bii tëjal bii Béja may ko ñëw may ko mu ñëw. bàyyi leen ko mu ñëw.

guro takk baa ngi nii ndeysaan mbokk yi comme ngeen ko gisee doomu Macky Sall mooy takk jabar tey mooy jël soxna bu kan ko xam ngeen ko noonu saa maa Gossas bi nga xamante ne mooy liggéey TFM ñoom di dem bureau yaa ngi noonu di dugg ndeysaan bureau yi la gaa yi di wàcce noonu bureau yi la gaa yi di wàccee noonu mbokk yi pour dugg biir ഗോൾഡ്

How are you?

am lëb lëb voilà damaa la gis nga fàttali damaa. damaa gis ngeen ko fii gis ngeen ko doomu Adama Faye lañ ñooy dugg noonu day si xale yaa noonu namoon nañ leen namoon nañ leen lool macha allah. Père li nga baax nga taxawal nga. yow laa seet moo tax ma ñu wax. incha allah dugg noonu mbokk yi lay gis ak ñoom incha allah. dama dama wayal bàyyi la ñu wayal. waaw may leen ñu may leen ñu may leen ñu. Eh, may leen ñu. may leen ñu. ma yor nga invitation. sama bopp maa ngi koy tey maa ngi. maa ngi. Oh, oh. Oh. kii nga xamante ne mooy gisuñu fi ki nga xamante ne mooy ak si président bi mën nañu xam ni ndax dina ñëw wala du xaar rek waaye gis nañ fi ay Diop Diop Sarr na dugg na ñoom Adama Faye yegg na ak ay doomam ndeysaan njabootu madame Faye Sall yooyu ñëpp yegg si na Amadou. alors na ngeen def Adama ñu ngi ci wax. xol yi am na xaalis ah. amul xaalis Adama. ah ñu ngi dëgër rek Adama. ñu ngi fi dugg nañu. ah.

ku amul carte rek leen s'il vous plaît ku amul carte rek leen yaji wala liye Hamidou Hamidou naka pat ko quoi

Yeah.